Khadim Kébé bu El Hadji Babacar Kébé Ndiouga di njiital Focus Investment Group bi nga xam ni société Lekku fii ci la nekk yebaloon na ab délégation fii ci wàccaayu Màggal Touba édition 2023 bi ci Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou di xalif général des Mourides ziyaare ko jébbal ko seenub àddiya waaye leeral ko projet bu mag bi nga xamante ni moom lañ taxawal ci dëkk bu sell bi di Touba di lekku fii muy ñaari centre commercial yoo xamante ni ay supermarché yu mag a mag lay doon te la ëpp lañ fay jaay ci réew mi lañ koy bayee. liggéey bi sori lool ñu dëppee ko lekku fii benn bi ñu taxawal ko ci Jannatul Mahwa beneen bi nekk ci diggante Mbàkke ak Touba. ak lu jëm ci zone industrielle bi nga xam ne moom lañu bëgg taxawal ci dëkk bi mboolem lu jëm ci bi ak fi ñu ci toll leeral nañ lépp sëriñ bi. ndax fu baayam amee teraanga Touba la ko indi ba tax na itam nee na li ko yàlla may Touba la koy indi moo tax bu ñu fàttalikoo ñaari at si gannaaw sëñ bi ñëwoon nañ seet la ci weeru koor bi présenter le projet tuubaa terminal muy tàmbalee njaareem ba buntu Touba gis nañ ni ñu si taxaw Mbàkke jërëjëf lépp a ngi sotti lépp a ngi sotti ñu ngi avancé ñu ngi avancé te loolu bu ñu fàttali ko port jéeri la ànd ak domaine industriel ànd ak market place luuma bu mag boo xam ne ñëpp mën nañ fa def commerce ñu ngi siy liggéey bu baax te dina am emploi yu bëree bari barka dem rek gis nañ ni nga taxawoo ñu nekk si mbëkk mi bu ñu yàlla jàppalee génn dem di uti liggéey dootul am si barke sëñ Tuuba jërëjëf sëñ bi waxoon nañ la itam suñu de yéene def ñaari centre commercial Touba benn si buntu muy Palais Ndiouga benn si buntu Mbacké bu Palais Ndiouga kebe commencé nañ travaux yi depuis six mois yàlla def na léegi mu pare centre commercial boobu 4000 mètres carrés ki nañ mën nañ ne mooy premier centre commercial moderne du Sénégal fii lañ koy def Touba. incha allah dina am banque dina am pharmacie. dina am ay boutique mais li ci gën a neex. Uh-huh. dina am supermarché 1500 mètres carrés. Uh-huh. te supermarché boobu. Uh-huh. dina yombal liggéeyu femme transformatrice yi. ñuy indi seen produit di am fu ñu ko jaay. jërëjëf Correa macha allah. supermarché boobu. jërëjëf Correa. dina yombal gan yi ñëw. naan maa ngi dem Touba damay def marché bala may ñëw. tuñu mu am bëgg nañ kuy tukki tukki ci xel mu dal boo ñëwee fii looy uti ci àdduna bi di nga ko fekk ci marchandise projet bi itam dugal na loxoom ci xëyu ndaw yi ndax commencé nañu recrutement yi yónni woon naa suwe bu nekk waxal sëñ bi lépp lu mu am ci demand nag ko jox ñu dugal ko démarré nañ par cent et téeméer waaw waa Touba lay doon. waaw keñ. Hmm. <laughs> waaw hmm, kontaan nañ si moom. léegi daal yooyu yëpp daal mu mu ngi sol loxo Touba ko moom waaw loolu yëpp nag li ko sëñ Xaadim doon wax rek delloo delloo sëñ Touba li moom jërëjëf sëñ lépp yàlla ko suñu borom gàttan doog tawféexi sëñ ba lépp sotti lépp sotti te barkeel lépp di vulgarisation bi sa ndox mi tamit mi jëm sëñ Cheikh Ibra daa waxaan nañ ko jox sëñ bii ñu a jotuñu ko jox nañ ko soxna Baali buñ dëkkal sëñ Touba yëpp tamit ñëpp kenn ku ne ak Hizbut Tarqiyyah ak Touba ca kanam fépp yóbbu nañ ko ndox jërëjëf jërëjëf Mbacke waaw waaw waaw <laughs> nee na loolu yëre na ko sëñ Xaarim loolu tax fii ñëpp a ngi daw jëm si fi moom mi fi dëkk nag bu tegeeg loolu ginnaaw taxaw na taxawaay boobu xolam sedd na bu baax ànd ak Aline Koré yaa na ñëpp tàllal seen loxo ginnaaw bu ñu jaaree Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké ba noppi délégation bi dem nañu ci Serigne Bassirou Mbacké moom Serigne Abdoul Khadr di président comité d'organisation bu Grand Magal bu Touba moom it leeral nañ ko lépp loo xam ne moo jëm ci projet bu mag bi nga xam ni Khadim Kébé moom la taxawal ci dëkk bu sell bi di Touba lépp ngir bokk ci ñi gën a suqali dëkk bi ci wàllum koom-koom Serigne Bassirou Mbacké moom Serigne Abdoul Khadr santaat ko bu baax a baax gërëm ko ay leeralaat bu baax a baax mbokk gi ak mbooleem ñi nga àndal ñépp waaye di teg nuyoo bi ci loxol sëriñ Sohaybu bu Siise mi nga xam ne mooy seen jëwriñ di lépp seen xaadim di leen yóbbanti nuyoo ci xaadim Kebe di ko sant bu baax ci xalaat yii mu xalaat te am ko nee mi ko ko wax bu yàggut bi ko Cheikh mun Mountakha boole moom ci ay xalaat yu rëy yu mu am ci dëkk bi dëkk fee def benn port zone industrielle bu ànd ak port sec ne muy xalaat boo xam ni ba mu ko indilee sëriñ bi ci weeru koor la waaye keroog ci digg bëccëg gi la sëñ bi yónnee woolu ko nu ko ñëwal nee sëñ Cheikh Ibrahima mii sax moo ko woolu woon bi mu yegsee sëñ bi jox ko yitte lool ngir xam ni mu doone njariñal dëkk bi kon nag loolu yàlla def na dox nañ ci jéego ba sori na mën naa am balaa yàgg xëy na décret président moo ci des waaye moom li ci dig wàllam noppi na kon nag loolu yitte ju rëy la di xalaat bu xóot boo xam ni sëriñ Saaliw yàgg na di ko xalaat nga xam ni dëkk bu toll ne Touba warta rek ci commerce bu fa ay usine amut dañu mujj nit ñi duñu am fu ñu liggéeyee rawatina nag nii tuubaa di yokkoo kon li waa nguur gi wax ci banlieue bi di wax naa bomb la fii moom baatinub sëñ Tuubaa moo fi ne moo ci feeñ waaye kon mooy raw fuuf ne ndax commerce rek moo fi ne te ñiy jaay bu ñu ëppee ñiy jënd ne bu boobaa kenn du jarle kon moo tax usine moom dëkk bu war a yokku rek faaw mam fa kon xalaat bii seen xaadimam dafa tabbi rekk ci xalaat ba waajuram amoon alaaji njuga kebe nga xam ni kenn du ko fàtte li mu jëf ci yoonu murit ba nëgë yàgg na lool ba mu fi jógee pour fanweeri at waaye ba nëgë kenn jëfaatagul lu toll ni njuga kebe nekkoon nag loolu ak njabootam bu ñu bëgg a jaar ci seen jéegoy bàyyi ya dañ koy rafetlu bu baax di ko ci ñaanal itam ak Serigne tubaa sunu borom dimbali ko ca gàttandu ko ca ba lam ci yéene maam ko ci barkeb Serigne ne nee ko nag yàlla dafa def nee moom nag yàlla dafa def ginnaaw loolu maam suñu bokk ndax Sëñ Abbas mi ko jur seexoo ko jur seexu sëriñ bu soobee ko jur. sa maam Serigne Bousso bee ko jur ca wàllu ndey sa bàyyi ci wàllu Cheikh Abdou Khadir Serigne Bousso bee ko jur mais waajuram soxna moom yi aar bu ma see siyaar si Serigne Abdou Khadir ne ca waajuram bu jigéen la ko yebal soxna moom yi di ko baax ne mi ngi fàttali ko yàgg na bu baax da daa bëgg Serigne ba mu ci sago moom soxna moom yi ñëpp a ko xam ci moom. waaye màggalu sëñ Abdou Khadir yàgg na li muy wax booba sañcagul këram waaye lu mu xat-xat bu yegsee dana ñëw ba ci moom ni ma ginnaaw bokk gi sëñ Abdou Khadir damaa boole woon ak yow kon nag léegi nga leeral ko ko mu ne sëñ Xaadim xam na ko waaye moom it mi ngi koy jàpp bu baax ñu ngi koy sant bu baax jërëjëf jërëjëf waaw daf koo jege.